Salam alaikum Je remercier je vais commencer d'abord par remercier mon camarades yi teew Je ñoom les remercier sénégalais qui, ci li dal ci suñu kaw sec, ak suma teewaay fii nag c'est parce que dama am lu ma metti loolu ma metti ma yàgg ko yóoxu yàgg ci wax yàgg di ci woote ay conférence de presse tey ji li suma ben copain di wax naan yàlla du nit non yàlla du est-ce que madame Aminata Touré son excellence mën nañ ko jàngal mbirum parrainage déedéet ma gis le représentant du premier ministre Boun Abdallah Dionne mu toog ci suñu biir est-ce que kooku mën nañu ko jàngal mbirum parrainage déedéet ku fi jóge Aly Ngouille Ndiaye buñ dee laaj baayu parrainage mooy baay koku mën nañu ko jangal mbirum parrainage non gay yalla du nit li dess il faut pas ñuy tiaxa tank day talalu mbaamu banku ce que le conseil constitutionnel a décidé genné seni candidat publier sen liste ñun ñi tok fi du kenn ku ci and donte am na ci ay candidats yoo xam ne ñoom bokk nañu ci ñu ñu wax ne ay candidats validés lañu mais ñoom ñiy toog ànd ak ñun ay gor lañ parce que ñoom mënoon nañu def ni ñenn ñi rocciku bañ a bokk ak ñun xeex bi mais ñun xeex bi mën nañ koo xeexal suñu bopp ku ñu ci fekk si ñu ànd ak yow parce que nag waa ji nekk ci roq bi yor conc bu diis bi mais figurez-vous le conseil constitutionnel le docteur chatian Gadio je mais ce ko waxal man mandat depuis que depuis commencé opération il cet interlocuteur direct mu ñëw def recours bi ñu non non non

ci la njublan ci fichier bi mu yor yàgg naa wax ne du benn fichier du ñaari fichier tey jii loolu biir na ne du benn fichier du ñaari fichier lañuy ñuy liggéeyee fichier boobu li garaaw mooy fichier bi dafa nekk ci mbedd mi am ay candidat ci candidat yu jàll yu comp ca fichier boobu parce que moo tax ñu jàll oui tout nañu dem ñu woo procureur wala nous activer la police ñu ñu dem xool Nous, yëpp ñu tibb ci parrainage yi woo nit ñi laaj leen ndax diw nga non mais récemment au niveau de le commissariat bu Yëmbal mais il y ngeen ci journaux yi ne am na ñu ñu jàpp ci mbirum parrainage am na ñu ñu jàpp ci mbirum fichier électoral.

élection yi ñu jëm ñun dañ ci wara bok ñi tok fi ku ci nek leen ne amul problème au parrainage ñun ñu ne élection yoyu dañu ci bok té yoon bi ñu ci vous bok nañu ko gëstu ko yenn say sax nga dégg ñi naan dañuy report élection waxu on n'a jamais demandé ça en tout cas man Bougane waxuma loolu

Et quand la justice est au service de l'injustice, elle doit être combattue. Gologi, gologi mungiki gi mu ngi ci biir tool bi golo gaa ngi yàq bi ne nañu dem pour baye Gologi Yak di yàq tool bi ñun golo dañ et loolu encore une fois bu desul lu dul ñun ñii ñëpp ñu nekk say taxaw jàkkaarloo ak moom moom candidat wam 11 du ko fekk ci urne yi parce que nag taxaw nañu pour jëlee fi Benno Bokk Yaakaar taxaw nañu jëlee fi candidat wu APR APR taxaw nañu pour jëlee fi Macky Sall taxaw nañu jëlee fi système bii nga xam ne jàpp nañ ne moo nërmeel Sénégal moo indi ndóol ci Sénégal moo indi sàcc ñu promouvoir ko ci biir Sénégal sénégalais takk leen seen digg. bettuñu kenn jërëjëf